bilbishri wal madadi noonu la ko doon dundee wax nañ itam suñu bés nee na su koor masaan jub daana rabbul ay romb jaan ngir di ko waajale koor daan romb jaan yu bare bare daa takk lu ay néeg ngir di ko waajale koor daa gas lu ay teen ngir di ko waajale koor ba am na am na teen bu tuddee woon ramadan am na ko teen bu tuddee woon rabiul awal ngir ak fonkam ñaari weer yooyu alxuraan ji itam ñim daan tànn ñu dem ci jàkka ja ci bitti daa xam ne ndax moom moo daan naafi la ci ci biir di jiite waa këram donte daan am dox seen diggante ba duñ ko gis waaye dañ dégg kàddu dégg ay yëngu waaye daan tànn ñoo xam ne mooy natta boobu seen man alxuraan sàmmonteeg ahkaam tajwiid yi alxuraan ju sell ba tax na ku ñëw Abdullah ibnu Abdullah ibnu Abi ibnu Abi moom la ko daal def loo mu doon ko man alxuraan lool nga xam ne gannaaw bi def na ko ñuy wax ku ñuy wax eh, ki ko wutuwaat eh, tur yi rëcc na ma naar bu waaw jawaat mi ko sajaat sajaat laa bu jawaat moom nag nga xam ne bu bu koor gi ñëw bis bu njëkk bi lam koy jox dana ko mën a yor ca weer wax te bis bu set noonu la ko def bis bu set rek dana ko jox loxo dana dana ma def su demee ba koor gi jeex mu jaxaar ba loo xam mën na ko mën na ko yor ngir dundam la loolu la fam fam weer koor su koor masaan jigéen daf day soññee itam day ne masaan weer masaan feeñ bañ seen ko ne ci foo toll da nga dégg kàddoom bi moom Sëñ Tuubaa maanaam naam maat leen pas-pas yi te yeesal pastéef yi nammaat leen pas-pas yi wax ko ñetti yoon daa tàmbalee waare wax ne lam daa dénkaan dafa mës a bind ci suuf chehru ramadana bind ci suufam alquranu xam ne chehru ramadana juróom-ñaari xaraf la juróom-ñetti xaraf tolloog juróom-ñetti bunte aljanna alquranu juróom-ñaari xaaj la toll juróom-ñaari bunti sawara dana kon nag bu cheikh ramadan mii terootee farlu leen ci alquran mii kon su leen tëjël juróom-ñetti bunti aljanna te dootu leen ko tëjëlite ba mukk tëjël leen juróom-ñaari bunti sawara te dootu leen tëjëlite ba mukk kon noonu la ci daal soññe bu saabaan masanjëw sax ci lay ci lay wax ne dee leen nemm ko seeni xol tey seeli seeni jëf ndax noonu say noonu yàlla bi da xam na ne waxtu ñu koy tëj leemal si ba tax day sàpp ci seeni xol ku ci sàggan tuuti mu sànni teew jiwam jiwu bon ba mu ca sànni nag waxtu wuñ ko tëjee lu koor gën dem lool man a gàncaxoo di di gën a mag ci safal ngay gën a sàggan di gën di gën a sàggani koor di gën a sàggani jàmm yàlla mu ne ko nag del nen di ko xal yi tey def del yéene nga xam ne waare su waxtu nekk su génne Shaaban ak Rajab saa bu génne lu mu gàtt gàtt gàtt daañu leen jox bind ab waar ci ci lépp ci waajal koor kon foofu la ko tegoon daa ko dundal daa ko dund kon nag loolu nag ñu war ko jàng ci moom war ko jàng ci moom lan man nag kenn kenn kenn na na ko defee kenn mënu ko ndax ni nga ko waxee léegi ku kenn xamul lu mu doon la ndax munoo ne malaaka la munoo ne yàlla mu ne kon ko kenn xamul mu doon la te yàlla ma la tax la moom waaye kon waaye teew na roy ko nag ci jaamu yàlla ci sellal ak pas-pas loolu ko ne man na ko sakem kàttan xam ne kon weer la wu màgg woo xam ne mosu ko yemale dara moo gàmm mosu leen yemale dara kon ku bëgg mbégam na ko fonk na nga ko fonk la yar yooyu xasida gii di eh, yaa xeeru dayfin su koor gi mu santeeru gannaaw bi ñaari jullit si dañ koy jàng ca mujj ko ñuy jàng yaatal bu sharaati loolu ba tay bokk na ci li li ñuy dénkaane mooy ku ko man rek bu seet nga ci njàng bis yu njëkk yi ngay jàng yaatal yaaxeet baytan ca fukki fan yu bu sharaati ndax geeya da koo gàtt na woon weer wi bii mu gungee ko weer wi lim bi li ci ay xasida nag yu jëm ci weeru koor bari na lool liñ gis mat na juróom fukki xasida ak juróom-ñett liñ gis ëpp na ko waaye liñ gis mat lool juróom fukki sa xasida juróom ñaar yëpp ci weeru koor lu ko jëmale tënkee weeru koor mbaa mu jox lu jëm ci weeru koor kon na nga ko fanke lu baree baree baree baree bari la ay tënk ak tënk xasida nga xam ne da koy tënk yoon léeg-léeg ko ko lu baree baree baree baree bare kon weer la woo xam daal bu tedd ngoogu kon nañ nañ nañ farlu baax a baax a baax a baax ni ko suñu xaj bu waxee léegi sellal gi mooy li ci am njariñ li ñu ko wax ci ngëneel lay tax ñu jëlee ko ci mooy woor ko ni ko mu xàqiquuna yi jàng ci Sëñ Tuubaa jàngale ko noonu dañ ko daan defe tam mooy woor goo xam ne du bàyyi lekk bàyyi naan rek waaye da ngay sellal fexe ba sëy sëyi cër doo ci jëf lenn la mën a jural bàkkaar daal li wax ci njëlbeen mooy waxtaan dafa ma sëkk ba boo koy commentaire doo xam foo foo jaar ak looy looy mën a indi euh, ñu teewal si nag daayira eh, Muxaddamatul Xidma te liggéey bii ak booba di benn rek mooy liggéeyal sëriñ bi ci lislaam liggéeyal ko ci néegi yàlla yi liggéey boo xam ne digale sëriñ Saalif la woon 94 eh, 1994 la ci joxoon ndigal daay jox jox leen tur yi daay mu xadamatul xidma daxal leen jumaa ji di di fa liggéeyal boobu la indi woon liggéey biir mooy gisoon nañ ne sàpp yi ni daa salfaañoo léeg-léeg jigéen ñi dugg ci biir jaxasoo nga xam ne ay sàpp da ngay gis da nga ciy gis góor gis yi wala sàpp su jigéen nekk ci kanam sàpp su góor loolu nga xam ci gis bi image bi rafetut ci la ñam yéene ji ci lé- ci taxaw ci dañ ko laaj ko ci ndigal mu joxe ci ndigal joxe tur wi ci lañ tàmbali di defar sàpp yeeg di jubbanti ak a defar gannaaw bi na la yokkaat yu bare bare bare bari eh, sëñ mot laa joxoon ni ndigal ne ma bu ngeen mënee fexe ba ñu gisante sax moo jigéen góor jigéen ñi moo waral day ñu wutan rido yi dox seen digg nga xam jigéen dañuy féete fee góor fi julli ba mu yàgg mu ne na ngeen ci boole julli iid yi eh, muy muy dox di dox ba fi mu toll xëy na jaar ci li li nga yaasi lépp du yomb waaye daal fii mooy mooy liggéey bi gannaaw bi nag ñu seetlu ne xutba xutba jumaa li ko taxoon a jóg mooy waar nit ñi fàttali leen xamal leen ca la tolloog la ñu dund gis sa leen ngay xukk ak di ko waar mun a amin wóor la ne kon kii li ñu wax xamu ci dara te leen del yu sëñ Saalihu leera ko lool bi a wax sax reer da ko jàpp da cee mu ne ko nag jox naa leen ndigal ne ba ma leen joxee ndigal rek xam naa ne xam ngeen li nga war a xam kon lépp loo xam ne seen ngeen ba xam ne jaar na jël sa ngeen ci la digal ak ngeen ci digal ca lañ tàmbalee bayaan bayaan yooyu nga xam ne moom la ñu ji nga xam ne balaa imaam ñëw ñu tànn na benn tem tànn kenn ci e, ñi ñi ñi ko mën taxawee ñu waxtaan ci lu toll li nit ñi dund lu jiitu xutba xutba xutba xutba arab bi ba mu jën ak jumaay murid yëpp roy ko ndax jumaa jee mooy mooy mooy symbole symbole yoonu murid mooy bi nga xam mooy xam lu mu def rek ñëpp ñëpp mën ko ba lii lépp loolu mooy li ko indi kon xam ne kon liggéey bi lépp benn la bu ngeen jëlee jotaay bu njëkk bi tey jagleel na ko kon loolu am ngeen kon liggéey bi ñoo ko bokk liggéey bi fii mooy ba xoox ba xoox mooy bi fii kon ñu ngi ñaan suñu ko tàmbalee. am na ay cellule ay lijaan yu baree bari ay sous commission yu ci nekk képp ku bokk ci kër sëriñ bi rek ubbil nañ la foo jàpp ne war nga caa mën a jàpp rek nga ñëw nekk ca ñu nekk ci xam-xam bi ñi nekk ci wàllu communication bi ñi yor wàllu organisation bi ñuy yor wàllu euh, euh, ni ñuy saytoo xaalis bi ak yeneen yu bari yooyu yëpp ngir rek bu wane liggéey sëriñ bi fexe ba lépp rafet kon ibbi nañ bunt yi képp ku bëgg a liggéey sëriñ bi ab tool bu yaatu la na ñëw jàpp ci sëriñ Murtada am na yéene ju mag bi mu amee ndigalul kilifa yi bëgg koo ànd ak ñépp taxawal na ci lu rëy génne na ci alali boppam def ci ba ci wàllu sonorisation bi rek génne na ci alal yu baree bari def ko ci noonu la ay magam yu baax yee tamit ànd ak moom liggéey bi di ko ci soññ di bàyyi xel lépp luñ ci def xam ne liggéeyal sëriñ bi la ci li gën a gaaw te gën a sel muy néegub yàlla kon na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp àndandoo def ci seen alal seen ñaq seeni xalaat seen xam-xam ba mu wane liggéeyu sëriñ bi ci la gën a rafetal kon ñu ngi tëj foofu ba beneen di ñaanal yàlla nangu sunu koor sunu mbokk yi jaxate jaxate tey nag ak sëñ imaam sëñ ba maam Balla sëñ Balla Sylla ñu wax ko mu tey nag ci ndog li mook sëñ Xaadim xam naa ne